ñaan bi kum njiiti réew mi Macky Sall fa dalal lenn ci kandidaa ya nga xam ne fañ leen a seppi ci parrainage bi ca pale ba niki démb yéene kaay yi nag fa ñoo xëy di ñu nettali la xam ca ndaje ma Sud Quotidien ne faa leen di wax secret audience ba l'observateur mel ni ko naan ko waa dooma may ngir yàlla man ma joxe détails yi comme yow ci secret nga nekk ko seetaan gaaña bañ jàkkaarloog njiitiram Macky Sall fa ñoo sàkku ci moom ñu xoolaat doxalinu parrainage bi jubbanti ko ndax fa bëri lu ca jaarut yoon fañ caa yokk sàkku ci njiitiram Macky sàll ñu bàyyi Bassirou Diomaye Faye mu génn kaso ndax comme candidat la fa war a def campagne ñu ne déeta waayeti fa ñoo sàkkuwaat ci njiitiram Macky Sall ñu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso Karim Wade tamit tere giñ ko tere bokk ci wote yi fa ñoo jàpp na jaay doolal te loolu ñoom ànduñ ca Vox Populi dëggal ko ne gaañi kay fa ñoo sàkku ñu bàyyi leen ñu bokk ci wote yi ba pare Bassirou Diomaye Faye ñu ko mu génn kaso def campagne ndax mënoo nekk candidat ba pare ñu téeli ci kaso gi lu jëm nag ci dàq wote yi toxal ko ñoom waxuñ ko fa de Cheikh Dieye nee na ñoom waxuñ ak njiitiram Macky Sall lu jëm ci ay toxal woteeg lu ma la mën ta wax déedéet fa ñu war a respecté calendrier électoral bi maanaam fa ñuy amal wote yi le 25 fa caa yokk na ne ñun xam nga fa ñuy dajeeg société bi di leen wax li ñu naqari ci réew mi noonu lañ amee sañ-sañ waxtaan ak njiitiram Macky moo tax ñu def ko l'évidence yéen a kaay dëggal ko ne wàllu toxal ay wote kenn waxul ko fa sax lu jëm ci loolu te mooy yéen a leen naqari ak liñ bëgg yëpp ba pare njiitiram Macky Sall fa koo bind na waa baax danaa leen tontu fan yi vox populi na ko xëy xaaral defal ndànk am na loo xam ne njiitëra Macky Sall tontu na leen ca saasi yaaw seetal biñ ko waxee na ko fa ñoo bëgg nga bàyyi Bassirou Diomaye Faye mu génn kaso def campagne xam nga lu mu leen tontu fa leen wax ne wax leen ay avocat am ñu sàkku liberté provisoire bàyyi bi nekkandiku suñ bindee man danaa wax ministre de la justice na ko bul bañ bàyyi bi nekkandiku googu avocat yi sàkku déedéet mu jàll léegi su boobaa nag àttekat yi suñ ko bàyyi rek mu génn def campagne lu jëm nag ci mbiru Ousmane Sonko mu kaso loolu mu ngi ci loxoy yoon mënuma ci dara te awma benn problème personnel ak Sonko waxuma la ak jomaay loolu njiitëram Macky tontu leen ma ca l'observateur ak turbine yéen a kaay ba tey turbine a kaay ne waaye man faa jaaxle audience boobu waa PDS de ndeke bokkoon nañ ci dem nañ ca pale ba te ñoom seen waa Karim du bokk le quotidien yéen a kaay na ko moo tax gars fa ñoo bëggoon a régler ay faay sant ma yoro ma nga xam ne moo fa teewaloon PDS te ndaje ma moom la la yéen a kaay bi jëfandikoo ngir wax càkkutéefu gaañe ci njiitëram Macky a tëj kaso te politique a tax prisonnier politique yëpp ñu bàyyi la ñu a joyanti wax ne lu ëpp benn sénégalais yoo xam ne wote nañ ci wote yi weesu fi mu toll ci fichier bi bésu wote yi mën ngaa dem pour wote rek ñu ne la sa tour nekku fi loolu nag fañ ko war a defar bala ñoo wote bés bi yéen a ne waaye ndaje moomu ñu am ak njiit réew tax na mbootaayu candidat yooyu nga xam ne fañ leen a sepp ci parrainage bi fi mu fa ñoo réeroo ah fa xam ñu d'accord na fa ñoo war a dem gisee njiit réew Macky xam ñoo xam ne d'accorduñ ca Bougane Gueye Dany waaye parti yi nga xam ñoo gën a mag yooyu ñoom ñëpp d'accorduñ ci ñu toxal wate yi Mary Teuw Mimi Touré Bougane ak capitaine Touré yi ne kaay feelu ko na ko ngonk yi ci kujje gi fa ñoo bañ ba tëdd ci naajoo ne fii kenn du fi toxal ay wate ba ci sax société civile bi Birahim Seck Guy Marius Sagna moom xam nga lan la wax ne njiitalam Macky Sall bu mandaam bi jeexee benn fan du ko fanaan ca palais ba pour muy leer Mimi Touré Bougane Amsatou Sow Sidibé ne kenn du fi toxalee ay wate vox populi mel ni ku naan leen na seen xel dal su fekkente ne candidat a ragaloon ne fa ñuy lii a mel ni ku naan man daal faa foog ne ñi nga xam ne fa ñuy xalaat naan wote yi fañ koy toxal man faa foog ne daal fa ñuy nelaw toxal wote yi nekk fi toll nii xam nga ci lu nekk fay wër ci ay gàmm ak ay màggal xew-xew diine yi daal ci lay wër waaye fay xett nag boobaale yaaw seetal Amadou Ba dem na Medina Baye seeti ji xalifa général ba lépp jëm ci gàmmu tey ba ñeseen ga ñu ne déetawaay lu ko jiitu dem na poroxaan ca màggalak soxna jaar ga gisee xalifa ba ak yeneen xaw diine yoo xam ne ma cay dem ña fas dem ci assemblée nationale mooy député yu PDS yi xam nga fa sàkk woon ñu amal enquête ci assemblée nationale ci leen ci attekatu conseil constitutionnel yi nga xam ne fa ñoo a ger ba tax a kaay ne bureau assemblée ne waaye yëf nañ càkkutef yi ni mel ay mois kenn faalawul leen bii moom dugg rek ñu fas yéene koo càmbar loolu mooy fast track l'observateur na xaay faalay xamal leen gis nga ñi fa ñu sonal seen bopp rek ay commission d'enquête parlementaire benn njëriñ du ko xam ay attekat conseil constitutionnel man faa foog na ñi daal fa ñoo yëgul li xew yëg la te Idriss Seck def ko mooy info yéene ba tax fa ñu ko wax mu ne Idriss Seck daal fa tàllal loxo maire bu Thiès Babacar dajeeg nag altine bi di ñëw ba tax le soleil yéen a na jongante bu nar a métti neex nag lay doon stade yéen a na ko faalee xamal leen gis nga Sénégal gii juróom-ñetti bii la dugal ci ñetti match premier tour bi tax na fi mu nii waa Côte d'Ivoire ya ak équipe ya des ca Coupe d'Afrique ba yëpp fa jàq tiit ragal Sénégal fi mu nii ñoom ñëpp moom la moytu ñi war a moytu dëgg nag mooy chauffeur yi daw ci kaw tali bi ndax accident yi fa bari turbine hôpital ak yeneen ñaar yu ci yokk libération moom fa xëy di ñu xamal ne Abdou Mbaye moomu nga xam ne fa rendi woon fa xet Abdou jaw ba mu faatu ñàkk bakkanam ca Seeraas la waral mu rendi ko nag faa leen koy wax yaw seetal fiiraange fiiraange gu métti moo tax mu rey ko ndax ginnaaw bu ko takk der yi jàppee moom Abdou mbay ca kanam enquête kat ya fa wax dëgg na leen Abdou jaw faa ko rendi fa xet man la li tax ma rendi ko nag mooy faa njortoon ne fay sama jabar maanaam fa bëggante di ngorowante ak sama jabar ci suuf secret kenn yëgu ko samedi ma na ko boo moytuwut faa bëgg nga bàyyi sama jabar altine ci laa ko ren di fa xet waa ma ne man de soo waxoon ne faaleen bett faa leen gis faa a jàpp sax ñu ne waaw waaye njortu rek te boo ci amul lu leer sax fasa sa jabar mu dem sa sëyeg waaja wala nga kalaame ko ci yoon yoon fajal la moo gën nga rendi ko donte nag jabaru jàmbur moom bala sant jabaru jàmbur